jëf mbokk internet yi ñu ngi fii encore ci lycée Elhadji Mbaw bu Koungheul fekk fii euh, mën nañu wax les présidents des gouvernements scolaires yi xam ne ñoo nekk fii ci département Koungheul ñoo taxaw nii pour am benn message bu ñu bëgg a jàllee pour les élèves ak leurs parents ci ouverture bi am le deux euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay ñu bàyyi la nga présenté wax ñu yaay kan ak lu tax ngeen woote tey ndaje bi fii nii ñu fekk leen fii nii ci ci lycée bu Koungheul. di wax asalaamaaleykum maa ngi uyoo ci turu Souleymane Sall nekk président gouvernement scolaire bu lycée El Hadji Ba ànd ak membre du gouvernement bi ak quelques président aussi tey nag lu ñuy tax a taxaw fii pour jàkkaarloo ko askan bi di wax ak ñoom nekkul dara lurul wax ci li nga xamante ni mooy reprise des cours yi le de gis nañ ni ministre de l' éducation bi def na déclaration le reprise des cours le 2 donc avec matuwaay yi nga xamante ni moom. jël na ko matuwaay yi nga éducation bi na ko d'après loolu bu demee ci biir département bi yenn information yi ñu am ñu ne nañ ak euh, élèves yi nañ ko ak parents d'élèves yi ñu bari ñu ngi inquiété wu ci reprise bi ak danger yi nga xamante ni feebar bii di Covid 19. Euh, depuis mu gane si suñu réew mi ba léegi gis neen jéey yu mu fi def laal ci domaine yëpp surtout domaine éducation ñuy tiit ndax anne bi dinañ ko mën a sauver wala année bi dina balancer tout ñi toog euh, quelque jours wala quelques semaines wala quelques mois après dégg ministre bi def déclaration bu reprise des cours le en tant que ñun tamit gouvernement scolaire ñu yor kàddu élèves yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir lycée bi fii ñu ne ñun tamit am nañ si benn participation bi nga xamante ni war nañ ko si def participation bi mooy lan information yi ñu am yëpp ci biir autorité Koungheul yi donc lu jëm ci wàllu matériel yi mu ngi fi lu jëm ci wàllu désinfecté école bi def nañ ko tey jii may wax ak yéen leen ko def matériel yëpp yi nga xamante ni mu ngi fii indi neen ko mais nag mënaguñ leen a assurer que ni benn matériel indi neen ko fii biir école tey ñu ngi nii taxaw ak yéen mais amul benn matériel boo xamante ni présenté nañ ko fii biir école mais lu ñu leen mën a assurer mooy que ni matériel bi mu ngi ci biir dëkk bi woote neen waa conseil départemental wax nañu ne matériel bi mu ngi sur place mais andeeguñ ko école peut-être d'ici les jours qui vont mën nañ ko indi matériel bi mais actuellement amuñ dara loo xamante ni mën nañ leen assurer le matériel mu ngi biir école wax ne nag dineen jël seen responsabilité si élèves yi nga xamante ni ñu ngi ci biir gox yi pour ñoom tamit ñu ñibbi si wax neen élèves yi daneen a jox ay masques élèves bu ne trois masques sel yi dina fi nekk lavage des mains tout a et en même temps classes yi sende neen classes yi vingt deux classes la classe bu nga xa chaque classe mu ngi am vingt et un élèves loolu leen wax après information yi ñu jotee ci suñu censure chaque classe mu ngi am vingt et un élèves mhm. parce que bu ñu jëlee nombre élèves lycée bi yëpp mille quatre cent cinquante élèves la mille quatre cinquante élèves yooyu ñu jël ci presque euh, plus de neuf cent et quelques élèves ñoo si nekk ay candidats ci lu ñu leen mën a wax actuellement que ni affaire bi tout est assurant actuellement mais nag ñu ngi wax parents d'élèves aussi ñi génn def seen devoir ñoom tamit wax ak ñi autorités yi en même temps ñu ñuy woo autorité yëpp ñu ñëw jàppale askan bi ci combat bi parce que feebar bi doon na feebar boo xamante ni mën na am ci yow mi nga xamante ni yaay personne bu jógee ci beneen localité moo am ci yow 14 jours soog a manifesté wu et pourquoi ñooñu di def retour testé wuñ leen avant ñi ñëw mais bàyyi ba ñëw ñu soog di leen test dans yooyu yëpp nga xamante ñu ñuy fekk si fii ñun askanu Koungheul tiital nañu et si la si ñun ak bu ñëwee est ce que ñoom duñu doomu jàngoro bi mm. waxtaan neen si ak médecin bi nee defaguñ benn test mais ñooñu assuré nañ leen mais ñun dalul suñu xel loolu dalul suñu xel daal li ngeen bëgg ñu mettre leen en pour yéen ñi nekk fii ngeen noon a dund si jàmm waaw loolu daal moo doon suñu mébét ñoom seen émission n'a rien à voir avec luy rajo communautaire bi di wax donc empêché nañ ñi def émission mais nag balaa muñ kenn heural day am ci diggante doomu aadama jéggal nañ ñëpp aussi te ñu ngi jéggalu ñëpp ci nga xamante ni ñu ngi doon xaar émission démb boobu amul. tiisoo nañu trop ci rajo Koungheul ci ci rajo Koungheul. mais tey jàll ngeen ci bi askan bi yëpp dañu leen dégg. ci Sénégal yëpp loolu itam ñu ngi ci jaajëfal suñu grand. ku yor xibaar yi on est là pour vous lépp lu ngeen soxla mu war a jàll par nañ pour jàppale leen pour mën a jàll pour le deux ngeen nekk ci ci yi am solo. kon seen i cours. xibaari Bambouk di remercier Seydou Dieng rajo Koungheul Fadel Ba di ko remercier et en même temps Ndaw Samb maa ngi koy remercier sama papa parce que bu ñu foofu waxtaan neen discuter neen waxal na ma lu bëri aussi conseiller na ma defal na ma lu ne aussi di sant nag di gërëm Ahmadou Matar Sarr mi nga xamante ni tey moo ñu permettre ñi mën a wax ak askan wi yëpp nga xamante ni moom ku ouvert la ci liggéeyam aussi ku déterminant la ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko jëfal aussi di rafetlu liggéeyam bu baax a baax parce que ñu ngi jot information partout dans le monde à travers euh, xibaari Bambouk si sitam boobu ñu ngi koy remercier bu baax jërëjëf kan ak fi nekkoon tey Euh, président bi moo fi nekkoon Souleymane Sall ak euh, Ibrahima Thioban mhm. euh, di quelque ministre bi nga xamante ni moo chargé programme yi mhm. ak soxna Aïssa moom tamit bokk na ci membre gouvernement bi ak Serif Gaye aussi bokk na ci membre du gouvernement bi ñii ñoo fi jotoon a teew tey. ok jërëjëf mbokk yi je crois que lii la woon ak euh, gouvernance club bu lycée si Hadji ba def seen rôle lañ def ay élèves diriger élèves yi moment bi wax dafa jot ku nekk da nga war a war a jox pour sensibiliser ñoom nag dem nañ fi war a dem dem nañu hôpital médecin bi wax leen li ñu war a def dem nañ IEF. Euh, am Mamadou Omar Gueye bi xam ne moo fi nekk inspecteur wax leen li ñu war def ñëw nañ ci rencontré censeur mu wax leen li ñu war def dem nañ xool collectivité locale lu mel ni conseil départemental mu wan leen ne jënd na ay produits lu mel ni ay thermoflash yu ñu teg ci porte bi ñu nekk nii di porte El Hadj ba mais am na ay ay ay ay am na ay lave-mains yu xam ne dañ leen ko def mais ñoom nag lu ñuy demandé moo que ni loolu bu jeexee nañ ko indiaat pour ñu mën a nekk ci condition normale fii ba jeexee ñu ngi woo nañ seen mbokk élèves yëpp ñu xam ne retour bi dafa am solo waruñu sauver année bi seulement mais nañ sauver éducation bi mooy lan fexe bi ñu nekk ci classe intermédiaire yi mën am niveau bu baax pour mën a passer parce que ñoom ñooy def terminal ren mais ñoo ñu def première déwén ñoo def ñoo def terminal kon parents d'élèves yi ngeen déggee noonu autorité euh, yi ngeen déggee noonu bonne volonté yi ngeen déggee ko noonu jàppale xale yi nii xam ne par nañ pour liggéey amuñu les moyens nag yu xam ne war a jàppale mais a sauver éducation bi na leen jàppale lu nekk rek ñoom soxla nañ ko pour mettre seen éli yi ci ci ci ci ci conditions yu normales pour ñu mën a réussir année bi kon euh, monsieur Sall ñu ngi mu jàll par nañ bëgg ñu woowee rek ñu jàll ko incha allah merci beaucoup jërë ngeen jëf.